dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dale na jàmm téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition màggal bu Touba Sud du Quotidien nee na Touba tàmbali naa fees taalibe yu bari riir utal si ci dëkk bu sell bi ngir fekkee si màggalu ko borom Touba gi ñiy jël oto yi amee ci ñoo xam ne saxaar gi lañu jël le soleil national ne saxaar googee démb la déqi dugg biir Touba yu bari yéeg ci màggal si am ceet mbégte mu rëy réew mi Quotidien ne ci boppam ñoo riir utal si Touba ku nekk nag ak fa ngay jaar ngir dugg ci dëkk bu sell bi fekkee seet màggaluk Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul gi xalifup sëriñ Touba di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ci ay mbiram la laas yéenekaay xëy di wax yéenekaay bi ne moom mbégte mi taxawaay bu rëy la am université Cheikhu Ahmadul Xadim bu Touba libération yéenekaay ne Touba kay tàmbali naa yëg màggal gi màggal gett taxawaay bu rëy la ci sëriñ Amsatu Mbàkke di am lii quotidien xëy dinu gën a xamalek moom dinu xibaar ne moom sëriñ Amsatu Mbàkke doom la ci sëriñ Sohaybu Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul bëgg itam lool xasida noone la mel ci alxuraanul karim yore daara yi taxawaay bu rëy ci ni ko Serigne Saliou Mbacke daan defee l'observateur moom jox kàddu gi coordonnateur bu màggal bu Touba moom Serigne Ousmane Mbacke di xamal waa journal Futur Média bi ne màggal gi Serigne Mountakha Bassirou Mbacke mi xalifa général des mourides li mu ci bëgg moo di ñu gën a takk laxasaay yi lépp luy salfaañe dëkk bi ñu moytu ko jëfe itam lépp lu méngoo ko lislaam ak na mu taxawee ndigal loolee nag la jàpp ne jëfe ko rekk mooy li war vox populi ne ndigal daal jëfe te itam ku fi def leneen di nga gis leneen général Moussa moo ko wax ci biir yéenekaay ne ne biir na ko ni màggalu Tuubaa gi mbindeef mënu koo sabote waaye nag ñi koy jéem lay waxal ak di leen artu ne képp ku ko def dootoo ko dolli le soleil national ne le soleil national ne ñaar fukk ak juróomi escadron gendarmerie la fa yóbbu ngir kaaraange ak màggal gi màggal googee daal turbine yéen kaay nee na bari na ci koñ yoo xam ne ndoxi taw yi tax na ba kenn mënu faa jaar loolee itam sonal askan woo fa yeewoo sonal itam ñi nga xam ne danoo màggal si te di fa jaar waa ONAS ci l'observateur di xam ne ne jël nañ bépp jumtukaay te itam dinañ def seen kemtulaay kàttan ba laataa ñuy àgg ci bés bi bépp ndoxu taw bu fi nekk dinañ ko fi jëlee Serigne Assane Mbacke jëlee nañ ko ca kaso ba journal L'Info moo ko wax yéenekaay bi ne moom Serigne Assane Mbacke ak ñu bari ñu nekkoon ca kaso ba dinañ màggal si plateforme SOSP ni mu ko sàkk woon ci kanamu xalif général des Mourides ngir mu sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall mu amal grâce ci màggal gi loolee itam na ndax démb rek seetlu nañ ne ñaar fukki doomu aadama yu nekkoon ca kaso ba ñu jàppoon leen itam ci manifestation 2023 yi bàyyi nañ leen ba nu ñibbi seeni kër bàyyi Ousmane Sonko mu jibbi këram loolee la avocat yi koy layal di sàkku ci source a ñu fay artu di naan Ousmane Sonko wàllu wér-gu-yaramam moo ngi gën di gàllu góose ci Les Échos ñu fekkaat leen fa ñu fay def alerte rouge Vox Populi am na itam téeméeri médecin yoo xam ne artu nañ ko moom Ousmane Sonko ngir lu aju ci wàllu wér-gu-yaramam maître Bamba Cissé kenn ci avocat yi koy layal moom Ousmane Sonko ci libération yéenekaay mu fay artu ne fi mu toll bàyyi ko moom Ousmane Sonko mu ñibbi këram rek mooy li gën laata bay di way mbuus gaa ñu bare te fare ci société civile bi loolee la ñu sàkku enquête yéenekaay ne société civile bi moom ak nguur gi seenug nekkin mënta neex ndax ñu bari ci ñoom nguurug Sénégal wóor wóoluwu leen nguur googee ba tey kenn xamagul kan mooy nekk seen candidat ci élection présidentielle yu atum 2024 le quotidien ne samedi bële di ñëw lan ko nar a xam ndax nag njiitu réew mi di a mi tàggat gaynde équipe nationale bu Sénégal def na remaniement stade di yéenekaay ne Sénégal ak Algérie lay doon démb ci la Aliou Cissé fësale ab liste boo xam ne gis nañ ca mu woolu Lamine Camara ba noppi zappe Nampalys Mendy record yéenekaay yokku ca ne Niakhaté Ndiaye bâtiment ci réewum Sénégal wóoratul libération yéen kaay ne bâtiment bi mujjee daanu ca tënkee ci ci kaw yi ouvrier taxoon ba juróom ci ñoom daal di ca ñàkk seen bakkan journal bi ne wéyal nañu enquête ba ba fi mu toll takk derrière teg nañ loxo directeur général société ba sàll woon liggéey ba ak képp kum ca àndaloon DSL ak seen marque bii di kii